Geçelim. Geçelim.

asalaamaaleykum wa rahmatullaahi asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu sëriñ bi ñoo ngi yëkkati kàddu nuyoo yooyu di ko boole délégation ak ñi nga xam ni ñi dootu ñoo ñëw di ko boolee suñu ziyaar di ko boolee di yeesal di feddali suñu taalibe di la ko jëbbal Mbàkke tànki tey nag ci benn baat rek la tënk muy cant di sant suñu borom bu baax a baax a baax di julli ci yonentam bi Muhammad alayhi salaatu wassalaam di sant Serigne Touba cant bu wér di la sant Mbàkke yow mi fii Serigne Touba tey ci kaw suuf di sant mbokki taalibe yeeg mbokki jullit yépp di sant population Sénégal yépp di yeesal di fedd li ne fi nga tegoon rek fi la nekk ba te mooy tënku ci njàngaleem sëriñ bi ak lu ñuy mën di sàkku ci àddina ci loolu la ñuy tënku yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manata faridan wa di oh, oh, oh, feeñal suñu mbégte bu baax a baax a baax ci lépp lu suñu boroom dogal te amuñu benn sikki amuñu benn werante ci ne lii ñu jóge ndam lu rëy rëy rëy lañu ci defal ñu fekke ko tal ko tàbbi ci ci jàmm génn ci ci jàmm di sant cant bu wér cant bu am foo xam ni am na fu mu tàmbalee wante amul fu mu ñëw te ni ko xol bi yëgee baat yi lott nañu ci génn di gën yeesal di gën a fedd li suñu laxasaay ci biir tool bi te mooy liggéeyal bu baax a baax a baax askanu ci wut jàmm ci dàq lor ci ñor di njariñ fu ñu ko mën di fekk ci loolu ci lañu tënku ci lañu taxaw ñu la kilifa yi nga xam ni ñoom lañu àndal li yëpp la ko seedeel si Mbàkke loolu moo doon tànk yi ñu ne xat na jàmp na wante bala ñoo jublu ci lu mu mën ci doon dinañu egsi ba ci sa kanam jeesal cant boobu yeesal cant yi itam ci kanamu mbokk yëpp ñoo ngi lay sant bu baax a baax mbàkke bi njëkk jërëjëf Thank you. kon naa ko itam jàll baal ko. Thank you. ñu ñëw ko daa wax kon nag jëfe ngeen ko. Sénégal ba ñu amee seen tubaab yi amoon jàmm. waaw yàgg na dégg naa ci kii bu nga dégg. Sénégal ba ñu amee seen tubaab yi amoon kon yéen fekk ngeen baat boobu da ngeen ko jël. ko waxoon rek yéen nañu de. am ngeen ndimbal ba gën ko gën ko mën a jëfee seen bopp tey jii ci ne li mu wax ci sa ci réew mi dañu amee Sëñ Tuubaa dañu amoon jàmm léegi da nga ne kon nekkee woon nañ leen jëm jooju ndax nii ngeen ko defee kàddu gi nga xam ne moom nga wax ñu sant kon dafa mel jëf yooyu dañuy war a def da ngay xam ngeen ko itam ndax moo tënk kon dafay bi xam naa ne loolu man maa ngi ciy gën a cant bopp lii moom lépp ci kaw xel Sëriñ Tuubaa rek la ko war a jàppale waaw xam nga kaw xel boppam da ko yàlla defal. kon taw bi dund rek dañ leen a mën a wan. loolu moom kon dañu ne liñ nañ ko ñu ko gis nañ ko si ñun pour tànn te ñu si woon. kon sant moom ñu ngi ñu ngi teg rek danaa di wax suñu waxi taalibe man loolu laa gëm waaye ñu doon sori lool waaye ñu ko ci ñu ko fenn si jaam ñi amee wàll mooy bëgg sëñ Tuubaa doyoo lii yoon toll sori na lool kooku loolu ko fenn waaye des na lu bare bare da ngay taxawal nag mu ne ni ñu ko gis rek mooy doyloo ko ñu jéem ko dee xame mun ko dee jëmee xame lu ñu xam ñu jéem ko nee jëmee noonu lay def boo xamee sëñ bi lu gën a xam sëñ bi gën a xam dëgg dëgg yi doo gën a xam sëriñ gën a xam dëgg dëgg dëgg dëgg taal taal bi gën a am procès lu dara lu ut lu baax yàlla tax bañ lu bon yàlla tax def lu baax yàlla tax ndaw lu bon yàlla tax soxla kon kat yooyu yu bëri bëri bëri ñoom awliyaa yi bokkul maanaam responsabilité yi bokkul kenn ku ne ak kenn ku ne léegi ñu gën a bàyyi gën a kawe waaye ñu dem si borom nas kon kenn ku ne ci ñun responsabilité boobu la yem bu gën jéem bu gën a xam bu baax a baax a baax jéem bu gën a jéem bu baax a baax muy loo xam ne def sa wartif bi def sa wartif nga def ko ci kaw ñu gën a tuuti ba ci kër yi gën a kawe léegi nag ñu toog dafa xam ne wóor na ko ni njëriñ man dañ koy te sama yéene lii nga xam ne wane ci man boo ko yéene ñëpp boo ko lii yi par benn ñëpp rek. lu tee lépp moo weesu woon dañuy mën a def suñu ñu foofu fan loolu bu déggaate tax nañ ci nguur nguur bari soppi ci dellu si léegi nit ñi yor dox dox nit ñi yor ko seen bopp ñëpp yem ci ñëpp bokk xalaat bi ñëpp bokk jëf ji loolu mooy lii dañu gën a kon li ci am solo rek mooy kenn ku ne ci ñun xam sa waat loolu ñëpp ndig mooy jub jub jub même ci loolu rek lay tax loolu rek moo tax lépp loolu la ñun ñëpp a ko bokk donc loolu lii dana xam ne ba ci mag yi bu doxee tey man léegi léegi jërëjëf jërëjëf loolu la ko joxoon rek ndax lii am ngeen daal daal lu rëy la. yaakaar naa comme ni ci yéen la yàlla joxal kii bi nga récupéré sa micro yi. Thank you.

Neues Stop, neues Stop. Neues Stop. Neues Stop. Amen. Amen. sëñ bi loolu la ñu ko ñëloon ñu siyaare bu sëñ sëñ Muntaxa dem dellu Idriss Seck ñu siyaare kon loolu la ñu teg ndiloon yéen mbokki taalibe bi mbokki jullit yéen ñëpp kon ñu leen dox di jox di daje ba beneen yoon incha allah